Assalamualaikum bokk yi alxames ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars 2024 seen yóbbalub ndaw numéro 15 Ahmadou Diong bay jagal sama doom na nga xam ne bu ñu la dee yar dañu la bëgg a fàggul ab cër xanaa kenn du jur di ko teg tiis yu ko dul jural njariñ te di ko ay lor gorus julit dañu ko war a waajal ci diine ak ngor ngir àddina daa mel ni làmb te loo fi samp noon yi fil ko boo taxawee ñu di fiir bëgg laa daaneel cim te teggiin yu ànd akub yar ngay boole kon nga doon mbër ku la song nga mën koo jaggi tër na nga moytu ger ak wor ak nar du tax a amub cër te dalay xañ diine ak ngor te àdduna ak li ci biiram waru koo jar bàl leen nu àq jërë jëf jërë géen jëf jërë géen jëfati